dafa war clair si bëtu ñëpp. parce que justice bi moom c'est une demande sociale. Sénégal li ko rey moo doon manque de justice léegi nag amnistie bi man xawma le contenu de cette amnistie mais lu mënti doon il faut que ñu teg ko sur la table moi je suis euh, carrément je pense que il faut que les choses soient claires pour tout le monde. et mm-hmm. parce que la justice doit être faite les gens. attendre en tout cas le gouvernement par rapport à ça. nit ñi euh, ñi nga xam ni perte nañ fi seen bakkan. ñi nga xam ni gaañu nañ ci ñi nga xam ni nekk nañu ay lago définitivement ñi ñu loolu ñëpp euh, bëgg nañu quand même mu am mu am justice te loolu quoi gouvernement bi mi ngi si. ndax euh, am na un projet pour que ñu def les enquêtes si yooyu yëpp donc naan wéy projet de loi te xam nga il faut donner du temps au temps. Mm-hmm. parce que euh, assemblée bi man je crois que euh, sa vie est courte. Uh -huh. on peut le dire ainsi. Euh, parce que gouvernement actuellement pour mu dugal dara jàllale ko. Hmm. pour mener sa politique ça va être très difficile du fekkente ne amul majorité à l'Assemblée nationale. Ouais. mais une fois am la majorité ce problème-là sera facilement réglé. ok euh, parce que parce que léegi soo fi dugaloon sax amnistie bon on va ils vont. ils vont bloquer parce que ñoom ñoo ko def. oui ñoo ko def contre tout le monde. alors euh, mais bés bu nga xamee ni ñi fi nekk actuellement le quoi actuel am nañu majorité je crois que les choses seront beaucoup plus simples mais. Mm. en tout état de cause il faut que euh, la vérité soit connue. Quand même. des sanctions soient prises. Mm. parce qu'on ne peut pas avoir des gens comme les DJ Badji et autres. Mm. les militaires et les gendarmes yoo xam ni. Fulbert ñoo xam ni euh, voilà ils sont morts comme ça. Euh, et puis ba léegi y a rien. ñuy def purgifie di yooyu yëpp sont des gens yoo xam ni il faut que euh, ñu ñu dem si te daan ci dem. que les responsabilités soient situées les responsabilités vont être situées et les mesures qu'il faut seront prises.